ñu dellusiwaat ak yéen ci beneen vidéo ci firi gént tey dañoo ñëw ci gént di wut di di def li ñu tuddee ruqyatu shar'iyya maanaam nga feebar dem ci mocckat bi wala ñaankat bi mu di la ñaanal yàlla wala nga feebar wala ngay wut ñaan dem ci sëriñ boo xam ne koy yaakaar la mu di la defal ay cangat wala nga gént ñi lay jox ay garab yoo xam ne dafa aju ci ñaan loolu mooy gént gi walla bokk danaa ci dugalaal dem ci petaawkat wala seetkat ndax li ma koy am ci ay laaj dafa bari li ngay njëkk a jàpp su fekkee da gént dem ci ku lay ñaanal wala nga gént dem ci ku lay seetal eh, yow mi ko gént question bi mooy ndax ki nga dem mu lay defal ay ñaan dafa nekk koo xam ne dafay liggéey ci alquran walla ay yooyu nga ne waaw su fekkee gis nga ne ki lay ñaanal alquran la la jox walla loo xam ne wóor na lii lu dagan la xaraamul moo xam luñ bind ci alquran la euh, yëg nga ne li may jox dagan na yi gént gi jàppal ne gént gi baax na dinaa ñëw ci lan lay firi bu fekkee ne da ngaa gis koo xam ne li mu la jox wóor na le la dafa nuroog yoo xam ne dafa aju ci sirk maanaam nekk ci ay mbir yoo xam ne dafa nekk ay euh, bokkaale yàlla wala ay tuur yu xaw a raglu yooyu noonu nga xam ne dafa méngoowul ak sharia méngoowul ak lislaam li ngay jàpp mooy baaxul dafay firi nga nekk nit koo xam ne dangay xuus ci xuus ci bàkkaar wala ngay def loo xam ne neexul yàlla loolu lay firi naka noonu bu fekkee da dem ci ki nit mu lay defal xaar laa wax waxuma seet mu defal la xaar ci gént yi nga gént mu lay jox résultat wu xaar ci gént dangay jàpp nii su fekkee daf laa wax lu neex lu la bégal ci biir gént gi ci biir xaar bi jàppal ne gént gi dafay firi mbégte ak bànneex bu dee dafa la wax lu la tiital contraire lool la bu dee da ngaa dem ci kilay seetal moo xam dafa yor ay petaaw wala di seetee anam boo xam ne wóor na la wóor yàlla ne méngoowul ak li nga xam ne loolu la lislaam bëgg méngoowul ak li charia bëgg naka noonu da ngay jàpp ni baaxul day fii nga nekk di yëngu ci mbir moo xam ne wala di jëflante ak loo xam ne seytaane da caa nekk loolu mooy ci gàttal ci global yow mi faral di gént loolu ça dépend ci jëf ji ngay ñaanloo wala jëf ji ngay seetloo bu daganee méngugul islam baax na bu daganul da ngay jàpp ne li ngay def li nga gént gént gi baaxul dafa dellu ci yow ngay nekk koo xam ne dangay def bàkkaar di def neexul yàlla wala nga dugg ci loo xam ne lor dala caa mën a fekk tey defe leer na mu des nag nga gént dem ci nit ki lay ñaanal ci alquran mu defal la ñaan lan lañ koy interpréter ci génn dañuy wax ne ala xasabi xaalati ra'i dafa dellu ci situation wu aji gént ji bu fekkee daf laa fekk ci ay tolof-tolof ak xat-xat njàqare dafay firi njàqare ak yooyu dafa nekk ci yoonu dañ waale bu fekkee daf laa fekk ci problème problème mu sëy la problème yoon la problème bor la lu mën a doon day fiir lool day jeex bu dee daf laa fekk ci wéradi maanaam feebar feebar bu moo xam feebar bu hôpital la maanaam lu aju ci médecine moderne la wala mu nekk feebar boo xam dafa aju ci feebaru seytaane wala xeet yooyu dafay fiir lool dafa nekk ci yoonu dañ mafum bu fekkee da ngaa nekk nit koo xam ne liggéey dafa nekk ci sa yaram rab dala jàpp nga gént ñu jox la ay càngat walla yu mel na day firi loole dafay tàqaliko ak yow liggéey la bët la làmmiñ la cat la peut-être laa fekk ci feebar feebar mu mën a doon nag ma ko waxee day firi wér ca feebar su dee yëpp amul nga gént ñu lay jox ay càngat dafay firi istiqraar usari wala istiqraar nafsi maanaam nga am nekk nit ko am stabilité stabilité sociale ci cadre bu gën a général li ngay jàpp boobaa ala kulli xaalin baax na ci gént ñenn ñi dañ ne ci yenn borom xam-xam yi amuloo benn problème nga gént dem ci ñaankat bi mu lay ñaanal moo xam alxuraan la moo xam ruqiya lay def dañu wax dafa firi ne yow sa ngëm yàlla dafa nekk lu dëggu maam da nga am ngëm yàlla gu wér wala nga nekk nit koo xam ne da ngaa jege sa boroom ci cell te ci jaamu yàlla kon di jàpp baax na am na problème ci ñaari nit kenn ki mooy jigéen goo xam ne amuloo borom kër yenn boroom xam-xam yëpp dañoo bokk wax ne dem ci ab ñaankat mu lay ñaanal walla dem ci ab mocckat bu dee dafa nekk lu daganul moom wax naa ko moom féeti na boor nee naa lu mu mën a doon baaxul waaye bu fekkee jigéen ci amul borom kër ñenn yu ëpp ci borom xam-xam dañuy wax dafay firi ñàkk am stabilité maanaam am ay stress ay njàqare ay soucis yu nekk ci sa yaram ci say mbir gént gi nekk soññ ci yow nga wut ku la defal ñaan loolu la boroom xam-xam yi wax ci jigéen bu amul jëkkër ñeneen jigéen bu am borom kër léeg-léeg ñaari wax da cee am. wax ju mucc ji gu moo moo mujj ji moo gën a wér ju njëkk ji mooy dafa am ñoo xam ne dañoo xam day firi ñàkk am stabilité ci seen yëgu say problème ci sa sëy ñu soññ la ci nga wuti ñaan ñi ne des déedéet day firi stabilité ak dal ak jàmm ci sa néegu sëy wax jooju moo gën a sax moo gën a wér te moo gën a yaatu bu fekkee nag yow aji gént gi yaa gént di ñaanal nit koo xam ne xam nga ne kii diw la jamono yi nga koy ñaanal bu dee dafa fekk waajooju am problème day firi problème day jeex bu fekkee yow yaa am problème day firi problème day jeex wala mu firi nga nekk nit koo xam da nga nekkoon ci di def lu neexul sa borom mu firi mucc ci def bàkkaar yooyu ko koy bàyyi jëm ci yoonu yàlla danga gént nag di eh, nit koo xam dafa am rab da koo jàpp wala yu mel noonu ci biir gént yi nga gént di jàng alxuraan ci noppam wala nga koy sotti saafara walla nga koy yóbbu maanaam nga nekk ci koy taxaw yow su fekkee xam nga nit ka tombeek dëgg-dëgg nit ki feebar yooyu da koo jàpp day firi kooku yàlla da ko namm dimbale wér nga dañ bu fekkee amul ci yow la am day firi yàlla da namm dimbale loola am bu ñaar yëpp amul day firi mucc ci pexem aji añaan wala mucc ci pexem noonu ok mu des nag kii dafa am feebar bu ko dal dindel feebaru rab la feebaru jinne feebaru seytaane nga nekk nit ku koy taxaw waaye nga yëg ne yaa ngi koy jàngal loo xam ne du alquran wala yaa ngi koy jox ñaan yoo xam ne méngoowul ak sharia méngoowul ak alquran gént gi baaxul ci yow aji gént gi la dellu da ngaa nekk nit koo xam ne da nga nekk ngeen baal ma kàddu yi naafiq yàlla nañ ci yàlla musal bu ko defee buntu baa ngi noonu ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé mën ngeen ñu xaar ci deuxième partie bi incha allah wa ma zalika alallahi bi azizin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu